caatu ngéwél a ngi noonu taxaw na ci benn birig sotteekoon na benn butéel <laughs> butéel caatu ngéwél a ngay sotteeku lekk lu mu doon xaw ma cuuraay la xaw ma lu mu doon jëla ko koy joxañ ma ngi koy joxañ caatu ngéwél waa lii lumu mu doon ma ngi ko koy visé mbaa ko ko jam puisque làmb ja dina am ma ngay léemu ma koy jam di wax ma ko koy jam di wax sëñ ko ndaysaan buy ba la toj léegi kii mooy fils de Zallo doomu Zallo la <laughs> ndaysaan Zallo ay baayam xale la boo xamante ne maas. caati ngéwél a

yi seetaan Wassare Lamb ñu ngi noonu ci grand combat bi Ama Events moo ñu fi indi le premier février 2020 nationale fils de Zallo moo la woon ginnaaw caata ngewal li moom ngeen jàkkaarloo arbitre bi sifflé na moo daal da day gaaw gewal day gaaw caata ma ngay dox ci koom jël na ko fils de Zallo jël na ko fils de Zallo jël na ko lu muy def daan na wala daanu ko génn nañ saako yi wala déet Fils de Zalo daan na ko déedéet ah. déedéet lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax lu Fils de Zal caatu ngewel bi Fils de Zal fi mu yegg caatu ngewel gi ba mu rëcc est-ce que dina ko fa yeggal waaw euh, jili boo xoolee osé bi mu osé ak euh, lim ko mayul dara dox ci kawam loolu rek bu ko confirmé waatee da koy daan jël bu rëy. moom fils de Zal moom fils de Zal parce que ni mu démarré nii dafa woon caatu ngéwél gi ne ko dàqoo ma bëre ëppoo ma doole te aw ma lu may tiit ci yow loolu la wane nii te bu ko confirmé waatee da koy daan jël bu rëy. fils de caatu ngéwél gi. ña ngay leewaatoo xeex na Fils de Zal ngay dóor ña ngay dóor parce que dóor mu daanu kaawo kaawo kaawo protestant wattu na am na am na protestant bu deñ am na protestant bu deñ ay waay jili petit kar mi nga ay waay protestant bu deñ protestant Fils de Zal ay wax naa la ko dañuy bëre Fils parenthèse daa ba rek kan lañ oh. njool gi ndeke macha allah ku lu kuy géwal kontaan nga waaye est-ce que fii mu jéggi bëtam. Fils de Zal caatu ngéwal gi. dama bëgg Fils de Zal mu def ndànk ci caatu ngéwal mu ne maa bëreeg Ada Fass maa bëreeg Boy maa bëreeg Djigo Zilo bëreeg Sabala rek loolu doy na nga def attaque ci coow waaye kii di Fils de Zal dafa andi confiance bu donte nag ci victoire la jóge digganteem ak doomu jàmbaar am na ay victoire am na ay défaite bu ma juumul moom fils de Sallo trois défaites la Yankaw Junior a ko daan ak xale bi nga xam mooy Jigo wala xale bi nga xam mooy Sabala ak ki nga xamante ne ndeysaan mooy xale ba nu mu tuddati waay fan lan bëreeti jël bu rëy ba Yankaw Junior daan na ko jël bu rëy kii di fils de Sallo wala kii di caatu fii la bëree nag Ada gis nga combat boobu moo déclenché Ada Fass deux défaites la am moom ki nga xamante ne nii mooy caatu ngewel gi boo ko gisee da nga naan amul doole nag mais nag góor bala nga ko yeb ñam ko daa mel ne am na lu xew de. am na lu xew damay ragal làmb ja mbaa du mujjee par décision arbitrale làmb ji damay ragal mbaa du mujjee par décision arbitrale. yàgg na ca ardo de xaw ma nu. yàgg na ci arbitre ba moom ardo de Zal. fam ko door moo garaaw. coup yi mu jël ci combat bi. daa yàgg ci combat bi. jëla caatu ngewel caatu ngewel. parce caatu ngewel. cey làmb. papa ji papa ji sàlloo Zal ma ngay aalu lu Zal loo bëgg a wax. Père Zal. non muy bëree moo baaxul rek quoi. waaw laa koy wax noonu. wax naa ko ko ci kanam bi la. ndeysaan. wooy protestant doon seet. waaye mujjee nañ gis. jigéen a koy arbitre na ay siisam. góor baax na jigéen baax na arbitre bi sifla waat na. caatu ngewal. Fils de Zal Fils de Zal moo leen féete ginnaaw. caatu ngewal ngeen jàkkaar lool. Malick Niang andi ko. Fils de Zal loo baawam Zal loo andi ko. góor balan ñam ko. Fils de Zal loo doxatu ci kawam de. Zallo daa bëgg a ci ci tànk yi la jëm. Caatu Ngéwél bëgg bëggul xeex. Caatu ci tànk ba la jëm. sànni na xeex nañ. li de Zal door na. ma ngay jëli. bañ na wàccaat na. hee fils de Zal. ndeysaan dañuy bëre. combat bi ñaari xale yi joxe nañ lu ñu am. mbot. déet. mbot wala biit. fils de Zal Ngéwél. du yomb jiili. na nga ca ba tey de. ku ci daanu jël bu ngay daanu. parce que ñaari garmi la ñaari technicien lañ. fii de Saalum dimi felek def. te caatu xam na loolu. caatu dafa sangu mee nelawut. ndeysaan Fils de sol na ko. takk na ko bul forcer Fils de force bi nga koy ci yow arbitre bi attewaat na ah Fils de Zal day demaat demaat na Ardo Ardo Fils de Zal dem na Ardo Ardo ba tey Caatu Ngéwél yóbbu na ko Ardo ñeexaatu foofu rek dam fa sam loxo Caatu Ngéwél door na ko kuubu doomu Sàllo bi dem na Ardo yàbbi na protestant bi dem na fekki baayam ca Ardo ba mu koy xaar réeral na protestant ba ndeysaan coonaa ko dugg coona ma xam ne protestant duñ fekkee coono borom <laughs> Caatu Ngéwél am na lu mu sànni arbitre bi sifflé waat na de Sale dafal nañ ko R4 ba ndeysaan sama xel dem na ci Eumeu Sène ba muy bëree Gris Bordeaux lu mu sànni Eumeu Sène Gris Bordeaux R4 ba nii la tafe 6 nii la ko woon de ña ngay leewaatoo ñoom ñaar na fi mu toll ku ci nekk day déglu sa morom kii Ikri Yoff kii Ikri Cheikh Mbaba Ciss de Sale Cheikh Mbaba la ne ndeysaan caatu ngewel li ndeysaan écurie Yoff la ne gis naa Malick Niang indi ko moo lay wan ne lamb am nañ ci xale yi yaakaar maa la ko wax foo dem Malick Niang indi kii kii papaam Zallo indi ko ndeysaan xoolal loolu xam nga Demba Thiaw Yoff ak Cheikh Mbaba revanche baa ngi nii ci fii de Zallo ak caatu ngewel ña ngay lewaatoo Fils de moo lay wan ginnaaw Ndeysaan Caatu Ngéwél moom ngeen jàkkaarloo sëñ Bas ñu ngay tànk cey lamb ñoom ñaar Fils de Zal daa yaakaaroon bu jëlee combat ba jeex ña xeex jël na tànk ba jël na tànk ba takk na ko mbaa dina jeex yëkkati Fils de Zal taxawal bañ na Fils de Zal eh jugaat nañ la ilaha illallah mbaa du la mot Fils de Zal mot ko mbaa du ko daan may dóor déet Caatu Ngéwél toog na Fils de Zal toog na Fils de Zal toog na Caatu Ngéwél daan na Fils de Zal toog na Caatu Ngéwél daan na Fils de Zal toog na jógal dem ca moom. Oh! ma dem tukki ñoo jël sama wàll si làmb ji. Fils de Zalo dama koo duma maa ko gën doon bandi man waga mbayaar laa mbayaar laa dégg ko xale naa mbayaar du xaadi man mbay mbay tey jii nii ji Fils de Zalo fi ma toll fi ma tolloo toll ku xam làmb xam ni bu doon damay bàyyi rek damay daan mais lamb bi tey jii nii bi may génn barki Seydina Mohamed damaa jooy. sa tànk bi nga koy jox moo ma jaaxal chaque fois bu dawee jël sa tànk nga bàyyi ko xamul lool sama waa Ikiri xam nga kon kontaan nga ay kii nii yàq mi nii kii maa ngi koy gërëm kërëm Bambilor falaa pere lamb ji ba tey maa ngi koy ñaanal jàmm bu sama xarit la barki Seydina Mouhamad. dëgg la wax waxagoo ko. non sama tànk man damaa mën a bëre. suba ñëw leen yoof seet si ma. wala ngeen ñëw ñu ànd yoof. dëgg la dëgg la